spectateur euh, Touba Argentine TV ba tey comme niñ leen ko doon waxee ñu ngi fii ci kër Serigne euh, Modou Kara la bokk ci jàmbaari Cheikhul Khadim yi ñu fas yéene waxtaan ak moom tuuti naka lu dunde màggal gi ak naka lay waxtaane ak jeunes yi ba tey euh, yaaram ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ginnaaw ba ñu yesalaate suñu taalibe ziar la bu baax a baax yaa ngi ak télévision Argentine TV. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Ahmadou Kara la jaamu Serigne Touba <clears throat> ñu ngi nuyu waa tele bi di ko tàmbalee ci yéen ñi nga xam ne yéen ko fi teewal ba ca kaw bàyyiwuñu kenn di leen ñaanal seen tele boobu bokk ci tele yi gën a màgg ci tele yi di leen xamal bokk naa ci télé bi incha allah ci fans yi laa bokk bis bi nag du bisu ceerlu du bisu daaru bisu jullit yëpp rawatina waa kër Serigne Touba yi ndax ku ne xam na ne bi Serigne Touba di dem ci géej gi bu fekkoon Serigne Touba demul ci géej gi xéewal yi nu am tey duñ ko ba fa desoon it xéewal yi nu am duñ ko bu Serigne Touba ñëwul woon jamono it kon li nu am duñ ko te bis bi bokk na ci liy màndargaal ne Ceerno Ibra Faati mi nga xam ne mooy taalibe Sëriñ Tuubaa di rakkam bu Ceerno amul woon Sëriñ Tuubaa loolu nag ku bëgg bëgg a wet wet waaye bu fekkoon Ceerno amul Sëriñ Tuubaa doon na ne bi nga xamee ne Sëriñ Tuubaa dafa gën a àdduna mel ne mag baa nekk nitu yàlla mel nu kenn melu teewut dafa daa wax ne dafa am am lu ma dese ndax fu ma jëm ci yàlla yàlla daf maa wax ne ma soxna faati isa jóob ndey faati isa jóob moo yor li ma ciy gindi yàlla nee na su dee góor nangu na sama ñaan naa woote su dee jigéen gàntul na ma sama wote du ko nangu kon bu ceer ceerno ñëwul woon jamono yoon wi du am bu doon góor it yoon wi du am bi nga xamee ne wax nañ ne na toll na ci ñëw mu di ko waajal sëriñ bi day yëddu soxna si lu mu a def waxtu bu ne bëgg naa xam fu soxna si toll ba sa ba Seex Faati gane àdduna loolu gan gan gan di def mooy addu boo ko Sëriñ Tuubaa déggee def ndey faati loo andi <laughs> kon li mu andi la woon ci moom mu ne ko góor la mu ne alhamdulilahi rabbil alamin yàlla nangu na sama ñaan sant yàlla daal wax na jëmm jii day am nañu nit yàlla yu ma xamal ak yàlla ne su fekkee Moussa la mooy Sam Haroun su fekkee kilifa gu ma mën a doon mooy sama conseil technique yàlla nee na mennum jëmmum Cheikh Ibrahima Fati ji naa ànd ak moom te dem su dee góor lu may def naa ko wax ak moom ah, su ngeen demee su ngeen dee dem di dox bu dee lu lu lu looy def looy def na ko ko wax lu mu la ca digal na ko def <laughs> li ko jëf nag mm-hmm. Maam Mor Anta Sali nelaw Ceerno nekk xale bu ndaw Serigne Touba bëgg-bëggam yépp ak bàyyi ni muy neexe ak maam Mor Anta Sali nekk nitu yàlla fa mu toll génn àdduna ñu di ko miraas mu ne moom soxlawul ci lim bàyyi dara mm-hmm. su amee kaamil bi daal ak ceernu jël kana ceernu kon ku toll ni Serigne Touba nelaw ñu di ko mu ne moom ceernu ak kaamil bi la sax ñu daal koy fob kaamil bi jox ko fob ceernu jox ko ba yoon wi amul nag ceernu mm-hmm. nekk ab taalibeem bi yoon wi amul ba yoon wi am ceerno nekk ab taalibeem ñu ñëpp fekk ko ci bàyyi ko fi kon ku ëppale ceerno ci sëriñ Touba kon kanay sëriñ Touba ngor gi sëriñ Touba am loolu mënta am ceerno doon jëmm joo xam ne sëriñ Touba dalaa wax maa ceerno wër-wërloo garab lan ku fekkee tàmbali ba xamoo ko jiitu mhm. daana wax ne ceerno Ibrahima Faati Mbàkke mooy man maay moom daana wax mooy sama ndeyjoor mhm. ceerno Abdou ay Ayman lu ne wax na ko ceerno dangay xool ku toll ni sëñ Tuba ak yoonu murit ni mu toll ci ceerno ak sëñ Tuba kese ba toll ni mu toll bi mu toll ni mu toll nañ ma andil nit ne ma man day mas na maa digal ceerno nangam déedéet sëñ Tuba ma daa digal ak ceerno waaye mas na maa digal ceerno beneen sëtu sëriñ beneen mbokkum sëriñ Tuba mu ko mas a wax amul ceerno doon jëmm joo xam ne boo ko bëggee xam mooy bi nga xamee ne sëriñ Touba mi ngi dem ci liggéey bi tubaab bi exil ko jël ko yóbbu ci lan bul julli mu julli bul woor mu woor bul bul ga luñ ko ne bu ko def ci lislaam rek Serigne Touba def ñu daal di jël jël Serigne Touba nag ne dañ ko yóbbu kan moo ko mën a wutu foofu est-ce que Touba bi buñ bàyyee buñ yóbboo sëriñ tubaa dañuy bàyyi dañuy bàyyi rek nit koo xam ne la Serigne Touba doon def ma ngi koy wéyal <laughs> tubaab yi duñ ko bàyyi duñ ko mas a bàyyi tubaab yi dañoo daal di euh, sonal tàmbali sonal sëriñ Touba Xaadim Rasool ci fànn bu ne. ma fàtte ak njaboot gi ne leen Ceerno njaboot gàngoog Cheikh Mouhamadul Moustapha baax na Cheikh Mouhamadul Fadal ci loxo ndeyjoor ak loxo càmm ñaan ba noppi dénk ne leen dénk naa leen yàlla ak yonent bi ak seen baay Ceerno dem bàyyi fi Ceerno. Ceerno yanu yan bi mu yan bu diis nag yan boo xam ne ci gàttal la sëñ tubaa yanu woon rek ci ay natt fii ci Sénégal Ceerno yanu na ndax ginnaaw sëriñ tubaa rek këram këru boppam gi xiif am na fi boo xam ne ëpp na ñetti weer loo xam cin du tàkk ci kër sëñ Touba bu xiif amee ba xiif am dañuy woo sëñ bi rek sëñ bi day wax xaar leen ma ñëw ñu añ bu génnee ci sëriñ Touba lay waxtaan ci sëriñ Touba lay waxtaan ba nit ñi fàtte xiif bi hmm? bu reer jotee mu ne xaar leen ma ma ñëw ñu reer di waxtaan ci Serigne Touba bañ fàtte xiif bi am na ku ko déy ne ko sa mbokk bi ñuy wax diw Mbàkke am na sàqum ñett lépp ko ci ay njël sëriñ bi yónnee ci mbokk bi ne ko sàq maa ngi fi waaye mayewut léblewut sarxewut dama koy jaay su amee ma jaay ko su amut na ma bàyyi la saam wax nañ ne bañ amee ay fan lañ jox ceerno eh, addiya mu jënd sàq ma ne bu ko kenn def ay njël nañ ko faraas nga xam ne sàq ma dañ koo ji mu ne yàlla day xool sama pas-pas rek sama digg ak eh, sëñ Touba waaye njabootug sëriñ Touba gi yàlla du leen rey ci xiif biñ jiyee sàq mi sama bàyyi nee na sàq mi dafa barkeel ba mbooy gi kenn mënut a bay ay sàq fukki ñor lañ xoolal nag li nga xam ne maanaam foofu la Ceerno jaar ak yu bari yooyu waxuma ko bi mu ñibbisee dafa wax ne bis bii nga xam ne ci laa dajeeg sëriñ tubaa Serigne Touba nee na ku dib murit jox naa la lu ma la ci war a jox <laughs> nga xam ne lam ca teg nag def na waaye waaye yoon wi am na gimiñ ndax am na ko dul jël si te duma ko yët kenn kon bis baa ngoo ku ñëw sa wàll ngay jël si balaa ngay daaneel soxla woon nañ tuuti rek euh, xalaatalaat ñu wala nga waxaat ñu tuuti rek ci naka ngay waxtaane ak ndaw ñi yan kàddu nga leen di sànni. man moom sama waa kër li may waxtaan ak ñoom ci li ma ko sañ xam nga waxtaan ak askan wi moom ñi nga yilifut moom amoo droit wax ak ñoom ndax koo waxal bu ko neexee mu ne doo sama kilifa waaye ñi nga xam ne ñoom ci yow lañ aju dama leen di wax ne leen na ngeen am yar na ngeen am teggin na ngeen am jom. te sax li ci ëpp solo jom rek laa leen di wutal xam nga lu ko waral Serigne Touba Xaadimu sol dafa wax ne jom mooy capital ñu ne ko ah mu ne bala ngaa xam ne jomay capital nga gis koy wut ay milliards ba am ko bàyyi ko ak i doomam bi muy génn àdduna amuñu jom bu tëddee fi suuf balaa yàgg lim leen fàgguloon lépp danañ ko ñàkk waaye soo amee say doom bàyyi leen ak jomi kese doon nuñu ci yow dara nee na bi ngay génn àdduna waaye am nañ jom boo tëddee fi suuf balaa yàgg loo leen waroon a fàggul dinañ ko fàggul seen bopp mu ne kon jomay capital ñu ne ko mu ne mooy ngor mooy lislaam mooy diine mooy nangu mooy bañ daa dañ lu baax lépp joma ko jur bu di wax lu ñaaw te bëggoo koo wax lu ñaaw te mënoo koo baal Sëriñ Tuubaa nee na dee ko déglu boo ko dee déglu di ko déglu di ko déglu ba mu noppi ba noppi rek boo bëggee fay ne ko amoo jom ndax ñàkk jom moo jur lu bon lekk kon li may digal taalibe yi mooy nañ amuk taalibe nañ am lislaam nañ am diine mhm. te nañ am jom ak taalibe nag boo ko doon jàngale moom doo fi fanaan fanaan fi naan lii baasin miim liif laam laam abajada awasa déet moom yomb nañ moom benn baat la Seex Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina dafa toog fi kanam sëriñ Touba ne ko ah Mbàkke wutal ma wëlëre ci fere mu boole ko sëñ Daam Abdourahman ñu toog ba benn bi sëñ daam Abdourahman loolu wax Cheikh Ibra ne ko Cheikh a ah jàngal mag taalibi mu ne ko nax xam naa ko mu ne ko li nga ci xam mu ne ko ah li ma ci xam mu ah, bisimilah li ma ci xam xanaa bisimilah di ko wut rek mu ne ko waaw soo ko dee ba am ko nag mu ne ah, di ko wut rek mu ne soo ko bañ mu yàq mu ne ah di ko wut rek <laughs> mu ne saa yoo defee ne am nga ci dara rek yàqu kon nag loolu lay digal taalibi wasalaamualeykum. ayca kon mi ngi noonu ñoo ko déggandoo. Euh, ñu nekkoon wax ba tey ñu daal di teewlu ñaan rek.